si mu maa ngi gëñ bi haadal baladi ci dëkk bii di màkkatul mukarrama dëkk bii nga xam ne fi kaaba gi nekk mooy xiblaak jullit bi mooy dëkk bu yàlla barkel bi ilayha tujba samaraatu kulli shay meññet yi ñor ci àdduna bi ci ëpp wala lépp boo demee fekk ko fa mu jàppandi fa lool te dëkk la boo xam ne dëkk bu wow la ay montagne ak ay xeer ak tanga yu metti mo fa nek danaka ganjax sax fa wala garab yombul lu jafe waye yalla barkel nako fu mbir mana a fu mu ñoree ci aduna bo demee mak day melni fi la ciosano ngir nam fa bëree ak nam fa jàppande loolu nak yonent yalla Ibrahim moko ñaanon yalla yalla nangu ak ñaanam yonent yalla Ibrahim moko ñaanon yalla yàlla yalla nangu ñaan ga moo tax dëkk bu tedd la borom bi gën ci ne maa ngi gën bi haadal baradi ci dëkk bi wa anta te mbir moom yow muhammad xillun aji wàcci nga bi haadal baradi ci bile dëkk dëkk bi nga xam ne mooy sab dëkkuwaay di sab saxuwaay yàlla dafa gën ci dëkk bi tënk ko ci dëkku yonent bi nekk gam fa nekk loolu dañuy jàngal ne sharaful makaan day dellu ci sharafu ahlihi barab bu ne rek ña dëkk na seen tedd nga toll noonu la tedd ak barab ba di toll màkk barab la bu tedd yonent yàlla ibrahim dëkkloon fa soxnaam ak doomam ba sayidna muhammad feeñ fa mu doon dëkk bi gën a tedd ci kaw suuf dëkk boo xam ne fu jullit ne ci àdduna buy julli moom lay jublu mooy ak xiblaam jumaa jafa nekk ca Kaaba ga julli fa yemul julli ci beneen barab ci kaw suuf doonte am na ñu wax ne ku mel ni imaam Malik radiyallahu anhu nee na julli ca jumaa Madina moo ëpp tiyaaba waaye li gën a wér eh, te borom xam-xam ñi ci ëpp wax ko mooy julli ca masjidul xaram jàkkay mag moo ëpp ngëneel al masjidul nabawi ak yeneen jàkk yépp loolu ay xadis ñëw nañ ci yu koy firndeel. wa anta te mbir moom yow xillun aji wàcc nga ku dëkkee nga bi haadal balad ci dëkk bi wala xillun ku ñu yeewi nga tënkuñ la bi haadal balad ci dëkk bi euh, màkk day dëkk boo xam ne xurum la boo doon dàq nit bam daw dugg fa sax raw na danga ko war a bàyyi kenn sañu faa rey kenn kenn sañu faa euh, jàpp kenn di ko fa def dara ngir yàlla moo warmaal barab ba sàkku ci jaam yi ñu war warmaal ko waxuma sax nit waaye xayewaan ya fa dëkk kenn sañu leen a ray rabi àll ya kenn du leen rëbbu njanaaw ya dañ faa bari lool dangay dox di leen bëgg a dëgg waaye kenn sañu faa ray benn njanaaw xeeti xëti yeeg picc yi yonent bi rek la yàlla mayoon e, ca fatxu màkk yéeféer ya ko sonaloon mu sañ leen a jàpp rey leen loolu benn jamono boobu la ko yàlla daganal benn yonantum boobu waaye ku dul bi yàlla xaraamal na ci yow nga di fa rey ab rëbb waxuma la ak nit yonant bi li màgg-màgg ca benn jamono jooje ca fatxu màkk rek la ko ko yàlla mayoon moo tax mu ne lii yàlla moo ko ko daganal ca bés ba ca waxtu wa waaye buñ fa jógee xaraam na ba ilaa yawmi diin kenn sañu faaray kenn loolu moo tax mu ne ko wa ante yow xillun ku ñu nga bi haadal baladi ci dëkk bi sañ nga fee jekku say noon ray leen bi lii di wàcc boobu yontu baa ngi mag lislaam new doole lool waaye ni mu ko waxee it gannaaw gi lislaam dëgër na am doole ba fatxu mag jullit ñi ñëw ak mbooloo ak ngannaay yoo xam ne waa mag mënuñ leen a dékku ñu jébbali seen bopp waaye am na ci ñu yàgg lor lislaam sonaloon yonent bi yonent bi ne woon fu ñu leen jàppee nañ leen rey bu ñu leen fekkoon ba ci biir kaaba ga sax leen fekkoon ñu wéeru ci kaaba ga nañ leen rey loolu menn moom moo ko sañ waaye ku dul moom dëkk ba ci boppam day xurum joo xam ne kenn sañu faa kenn wa waalidin maa ngi gën ci aji jur wama ak lépp loo xam ne wala da jur na ko wuuti yi bëri li gën a wér mooy wa waalidin maa ngi gën ci bépp aji jur lépp luy jur rek wama walat ak jur am na ñu ne wa waalidin mooy yonent yàlla aadama moom mi bàyyi mi ndefi moom mi jur ñëpp wamaa walaat mooy ak ay sëtam ay sëtam ak doomam yëpp wa din aji jur mooy aadama mi bàyyi mi ndefi wamaa ak lépp loo xam ne walaat jur na ko muy ay sëtam loolu mooy wax ji gën a dëgër wala nga ne wa waalidin bépp aji jur wamaa walat ak lam jur am na yeneen tawil yu sori yu bari yoo xam ne boroom xam-xam yi wax nañu ko ci waaye jàppaloon kon bu ke adama la yalla geñ na ci mak ngir nam tedde ak nam nekké hurum geñ ci adama ak lam jur ta lam jur liñ ci djublu moy njabotam gi setam yu baax yi yonent yi ak salihin yi waye yeferi ñom ak guñ ci di mëna dugg ci ngeñu yalla amuñu ben xorma legi li yalla di geñ nak ci haadal balad ak ci walidin wa ma walad moy laqad xalaq bind nañ ñun yàlla al insaana doomu aadama fii kabadin ci coona nit mënta noppalu ci àdduna yàlla moo ko bind ci coona faw muy sonn na muy ñëwee ci àdduna rek coono la coono bu metti ci waay juróom wu jigéen wa koy jur ak ci moom di xaala xatira jiddan xam ne bakkanam des te lu yomb la bi ñëwee ci àdduna it daanaka doomu aadama bu juddoo la muy njëkk def mooy di jooy ngir xam ne ne fii mu wàcc kërug coono la bu fa jógee ñu commencé koo nàmpal muy commencé di yëg ay jafe-jafe di jànkuwanteeg moom di feebare ak wér di dem bay mën a toog di raam ci suuf bu demee bay sax ay bëñ loola di lu métti ci moom bu demee di jàng dox di daanoo ko jóg mën na cee gaañu loolu yëpp di ay coono bu demee ba màgg it door dugg nag dëgg dëgg coono ay àdduna war a jànkuwanteeg coono ay àdduna bu demee ba war a samp kër war a yor kër waa kër ah, lépp ay coono la liggéey bu ne pexe mu ne coono bu ne nit dana ca tàbbi moo tax yi yàlla bind bëri na waaye ku ci daj li doomu aadama di daj amul rawat na bés bu kàllafee nga xam ne togg nañ ko jëf mu war a taxaw ci ndigal yàlla yi tere yi lu ko bànneexu bakkanam bëgg bëgg mu war koo bàyyi yooyu yëpp di ay coono loolu lépp rek ay coono la bés bu demee ba fee faatu ñëwit muy coono ba gën a métti ndax coono bi ne ci sukuraat ak euh, la ca aju beneen coono melul ni moom waaye la ca gannaaw dee dara seddu ca muy bàmmeel ak laaju malaayika ya euh, ba ca dekk ga taxaw ak yowmal xiyaam di ko xisaab ba ba muy dugg aljana wala muy dugg safara lépp ay coono la moo tax mu ne laqad xalaq naa bind nañ al insaana doomu aadama fii kabadin ci coona moo tax ku yëg ne yàlla dara bind ci coona nga war sonn fas yéene say coono yëpp jëm ci lu baax jëm ci luy sàkku ngërëmul yàlla boo ko defee de loolu moo lay noppal waaye ki sonn dëgg dëgg dëgg mooy ki bëgg a noppalu ci àdduna ki bëgg a noppalu rek moo sonn doomu aadama la yàlla bind ci coono nit ñaare lu mu bëgg ci àdduna di ko wut mën na ci kër këri sonn ca mu jaral ko lu ne waaye bés bu ko amee rek loola day woyof toy day mel ni doonul dara laneen lu ko gën a rëy lay xool commencé waat beneen coono bu bees bu mu xoolaat leneen ci kanam rek du dañ ci coono boobu feeg mi ngi ci kaw suuf moo tax mu ne laqad xalaq naa bind nañu al doomu aadama fii kabadin yaani fii mashaqatin wa shidda ci ay coono yu metti coono yi euh, wax nañ la ko léegi tàmbali ca bañ ko ambee ba muy juddu ba muy nàmp bañ koy feral feral rek dafa metti ba mu màggee ba war a sàkku ab dund ak ba muy dund ba dee ñëwal ko lépp ay coono mbindeef yàlla yi bëri nañ waaye doomu aadama li muy jànkuwanteel ci coono amul beneen mbindeef buy jànkuwanteel lu toll noonu te la ko yóbbee coono bi dëgg dëgg nag mooy dafa yenu amaana bi te amaana borom bi nee na dama ko njëkk jox asamaan yi ak suuf yi ñu bañ ne àttanuñ ko inna aradna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha gaaral naa amaana asamaan yi ak suuf yi ak montagne yi ñoom ñëpp ñu bañ ne at nuñ ko mënuñ koo yelu wa xamalaha al insaan doomu aadama ma jox ko moom mu jël ko yelu amaana mooy taklif togg gi yàlla togg nit ñi jëf buñ jëfee jaar ci yoon wa bu ëllëgee mu fay leen aljana buñ ko deful ëllëg ñu yeeyoo safaan ba gis nga asamaan yeek suuf yeeg montagne yi ñoom seen yoon ci loolu ñoom ay jamaadaat lañ yoo xam ne xaaruñu aljana xaaruñu safara ña nga ne dégg rek ca la leen yàlla nekk loo bu ëllëgee ñu mujj xabaa an mansuuran kenn damaa doon mi nangoo yenu loolu nag moo tax du jóg ci ay coono wa xamalaha al insaan damaa doon moo ko yenu innahu kaana zaluman jahula mu ne ndax dana njort moom doomu aadama waaw yàlla nag saabu bu waxee al insaan ci alquran ba alquran jeex dañuy firi doomu aadama waaye li bëree bëri mooy insaan boo gis am na ko moom am na ko ko tax a jóg insaan boo gis ci alquran rek am na boroom benn jëmm la woon ju nekk màkk kor ku am doole abul ashad wax nañ ne kàttanam yeggoon na ci ab der moo xam deru nag la wala gëléem wala am xarab mën naa taxaw ci kaw der bi ak ñaari tànkam dëgg ba mu dëgër di wane dooleem ne ku mën a xëcc der bi ba ma dañ rek ma jox ko nangam ak nangam fukki nit mën nañoo ñëw jàpp ci der ba di xëcc ba der ba di daggati ko ay morso waaye tànkam fi mu taxaw du yëngu kon kooku ponkal la woon mu am doole lool moom la yàlla ne a yaxsabu ndax dafa njort an ci ne an naka luy mbir tey mbir lan yaqdira du am kàttan alay ci moom ahadun kenn dafa yaakaar ne moo ëpp doole ci kaw suuf kenn amul kàttan ci kawam loolu la foog xamul ne yàlla ko ëpp doole foofu kon kàccoor boobu ak li muy am am doole bu demee ba waru yaakaar ne lan yaqdira du xattan du jekkoo alay ci moom ahadun kenn bu boobaa juum na yaqulu ma ngay wax naan ahlaktu man de xalak naa dépassé naa maalan alal lubadan ju bari dépassé naa alal ju bari ci noono gi ma noono yonent bi dépassé naa ci alal ju bari ngir bëgg koo lor euh, alal jooju nga xam ne da ko dépassé te amulul ko benn njariñ njariñu ko dara féetewu ko fan moo tax mu tuddee ko ahlaktu mooy alal ju ñu xalak dafa dem ci lu amul benn njariñ te alal kum tàbbi ci say loxo na bàyyi xel ne moo xam lu bari wala lu tuuti ëllëg yàlla dana la ko xisaab dana la laaj lépp noo def ba am ko foo ko jëlee ndax lew na wala déet boo ca tontoo mu laajaat la fan nga ko dépassé ndax fu baax la wala dépassé woo ko fu baax moom nag euh, alalam ma ngi koy dépassé ci noonu yonent bi bëgg lor yonent bi ba noppi di ko puugare woo naan ahlaktu man xalag naa maalan alal joo xam ne lubadan alal ju bari la lubat baat mi ngi bàyyi ko ci attalabut mooy ay mbir mu bari mu mu mu mu def benn dànk waaye firi ko malan lu badan alal ju bari ayaxsabu ndax dana njortu an luy mbir tay mbir lam yaraho gisul ko ahadun ken jamono yimi muy alalam ak alal gimi muy wax ne dépassé na ko xana dafa yakarone ne eh, def kenn gisut ko motax muy ngistal ak ndéggatal di wax lam def xamul ne yalla raqib la yalla bil mirsad yalla mo xam lepp dara na buko bu xamoon loolu du nekk di wax lum def kon ay yaxtamu ndax dana njortu moom abul ashad moom eh, an naka luy mbir tey mbir lam yarahu gisu ko ahadun kenn aha kay yàlla nga koy gis malaaka yi ko yàlla booleel ñi ngi koy gis ñi ngi bind ay jëfam ak alal ja muy dépassé fa mu koy dépassé yépp ñu ngi koy bind dara mu put ci moom kay moo gàtt xam-xam rek yàlla ne alam na jaal ma ndax dañoo deful loxo ñeel ko ay nay ñaari bët yàlla ne lu tax mu weddi man noonu ak sama yonent bi bay puugure woo dépasse naa alal ci noonu gu ko noonu xanaa du man yàlla maa ko bind defal ko ñaari bët yi muy gisee bokk na ci xéewal gën a rëy yàlla xéewal ko mu am ñaari bët di gis te ki ñàkk ñaari bët ki ko yàlla xañ kooku moo xam dëgg dëgg xéewalu bët mooy lan moo tax yow yàlla xéewal ay bët dangaa war a yëg ne lii xéewal gu rëy rëy la sa bët yi di ci xool lu dagan di ci xool alquran di jàng di ci xool xam-xam di ko sàkku di ci xool lu baax te bañ a xool loo xam ne lu xaraam la luy waral ñu bindal la bàkkaar bañ a xool ay image ak vidéo yoo xam ne ay dong nga ciy jëlee te ñu bëree bëri nag ñu ngi xëy di sànq seen dund ci loolu rawat na jamono ji nga xam ne portable yi dafa tasaaroo portable yu bari mën a denc ay photo mën a denc ay vidéo yu bon yoo xam ne la Busayri waxoon bu fekkoon ne bët day fees ñu bëree bëri seen bët fees na ak lu xool lu xaraam ñu bëree bëri rek seen bët fees na ak xool lu xaraam wastafriqi damaa min aynin qadim talaat min al maxaarimi waldam ximyatan nadami yow mi xool lu xaraam ba say bët fees nag la lay saafara mooy nga réccu tuub jooy ba bët yi jeexaat ak ronxañ alam na jaxal lahu xanaa du ñun yàlla ñoo ko defal ay nay ni ñaari bët yu mën a gisee bët yi mu war cee xool mbindeefi yàlla yi war cee waaru gëm yàlla wali saanan xanaa du ñoo ko defal aw làmmañ ba lu mu bëgg a wax wax ko te yeneen bindeef yu bari yàlla xañ leen ko am na ay nit ni moom yàlla xañ leen làmmañ buñ bëggee wax seeni cër yeneen lu mel ni loxo lañuy ñuy junjoo wala beneen cër waaye mënuñoo wax wa shafatay ne ak ñaari tuñ yàlla defal ko ñaari tuñ yu ub gémmiñam gi mu mën koo dimbandikoo ci buy lekk ak ci buy naan ci buy ëf ak lépp loo xam dana ko jariñoo dafa tudd cër yi gën a am solo yoo xam ne benn bu ci nit manqué rek daanaka lu bëree bëri ci dundam manqué na ko waaye mboolem cër yi mu àndal rek yàllaa ko defal lépp kon bu waxee alam na jaxal la waxee na xanaa du man yàlla xanaa du ñun yàlla ñoo ko defal ñaari bët defal ko làmmiñ defal ko ñaari tuñ lol moy ñoko defal mboolem ay cëram yeyon na mu sant ñu ndax ku mën ta it leet mëna fay bor yalla mi la defal li yépp yeyon nga sant ko té bañ ko wéddi di nono, ak yonentam di ndamo nono, gën ko nono ak di wax la nga dépassé ci alal ci nono gi nga ko nono ginaaw buñ ko defalé yi wa hadaynahu ñu jubal ko an najj day ñaari yoon ya ñu wan ko yoonu njub wan ko yoonu safan wan ko yoonu njub wan ko yoonu safaan bépp doomu aadama buy kàllafe ànd ak xelam xam na lan mooy mbaax xam na lan mooy bon dafa fekk nag yoonu njub lu ci bëree bari ay naqara ki jafe moo koy peeg moo cay fees dell moo cay fees dell waaye ba ca mujj rek aljana nga fay fekk muy bànneexu bànneex yoonu safaan lu ci bëree bëri ay bànneex luy niru lu am solo moo koy fees dell ba ca gi rek naqaru naqaree mooy safara moom nga fay fekk moo tax kii sàggan yàkkamti njariñ lu teew ba tax muy jaar ci yoonu bond def na kasot noona fa muy jëm xamu ko mooy safara waaye ki nga xam ne gis na yoonu njub bi lum jafe-jafe lum métti métti mu nangu cee jaar fa mu jëmit mooy aljan rek waxa day naahu jubal nañ ko wan ko an najj day ni ñaari yoon yi mooy tariqul xayri wa tariqu char tariqul huda wa tariqu dalal ngir lan am na xel am na ay cër am ay bët mën a gis mu mën a sóobu ci yoonu njub bi muy yoonu texe wat ndi ko yoonu safaan ba ibnu mas'ud radiallahu anhu nee na an najj day ni mooy al xayru wa char mooy la yàlla waxoon ca inna hadaynaahu sabila jubal nañ ko wan ko aw yoon imma shakiran mu jaar ci yoonu baax bi sant wa imma kafuran mu jaar ci yoonu safaan ba rek weddi mu ne falaqtaxama Lute tee al aqabata barashba, ba lute lu tee mu sataxlu iqtixaam sataxlu ci ambir mbir diw sataxlu na ci kër gi mooy ñëw na rek dugg ci nam gën a gaawee nekkul di dengi dengi wala muy xalaat loolu mooy iqtixaam dugg ci mbir ci lu ànd ak benn dengi dengi waaw alxaqaba luxatan baat bi li muy tekki kuy dox ci yoon wu jaar ci ay doj ay montagne dem ba ca kanam am lu ko baare am lu ko bare nga xamne ne pour mu jéggi ko dana sonn lool mom la yalla di euh, baat bobu la istiaara bi jublu ci ne waaw lu té doomu adam mu mu lu dindi baras bi wala mu jéggi baras bi jalla Baras moy lan moy na li dox diggante moom njub na jëf-jëf du reuy du koy jariñ fa yalla du koy fegal safara yobbu ko aljana dana ko leeral legi motax falaq ta'ama lu té mu sataxlu al aqabata barage ba mom me don wax nan ahlaktu lubada lu te alalam jooju mu dépassé woon ko ci lu koy jéggiloo barage bi au lieu mu di ko dépassé ci noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma adraka malan moo la xamal ma ana lan alxaqabatu mooy barage bi xaqaba bii mi wax mooy lan mu ne fakku raqaba mooy xob bi ab baat fekk baat buñ jàpp yeew nga dagg buum ga loolu mooy goreel ab jaam fakku raqabatin mooy goreel ab jaam wér na ci xadis yonent bi ne képp ku goreel ab jaam yàlla goreel ko ci safara kon bu gorelee ab jaam ngir yàlla rek euh, sataxlu na iqtixam na aqaba bi ndax jëf na jëf ju koy musal ci safara di ko yóbbu aljana mi ngi noon jaam euh, fi la ko lislaam fekk bi mu ñëwee tanzim ko euh, waaye lislaam sib lool nag kuy def nit jaam moo tax mu ubbi bunt yu bari ngir nit ñi mën a gore yow mi dog ci weeru koor te tey ko sax kafaara war la bokk na ca kafaara nga goreel ab jaam naka noonu yeneen xeeti kafaara yu bari eh, bokk na ca na ngay kafaara da ngay goreel ab jaam ndax jaam dafa suufe lool jubluwaayu lislaam mooy ñëpp nekk ay gor eh, li am ci kaw suuf ci ay jaam ñu ubbi bunt yu baree bari ngir ñëpp mën caa jaar gore kon fakku raqabatin mooy goreel ab jaam aw itaamun wala ak lexal في يوم تبس بو ذي مزغبة برم قيف له المسغبة موي المجاعة قيف الجوع مغرى اليتيما من مولال اطعام موي مولال جوح او نم يتيما ابجرين اطعام في مصدر لا نبوه موي فاعلم يتيما بي موي مفعولم يتيما جريم بو خمنا ذا مقربة برم جيغنالا جريم بو خمنا دا فا جيغي بوكم لا aw miskinan wala ab miskin ku amul dara da matrabatin di ak ñak al matrabatu mi ngi ko ci atturaab suuf ki ñak ba taqoo ak suuf nga xamne buy dox sax amul dalu yum sol day deug tankam ci suuf bu bëggee teud day teud ci suuf koku baat bi fi la ko arab day wax taribat yaronte bi wax ci hadith taribat yada ko sa ñaari loxo takna suuf waye xamal ne baat bi ci turab gi firi suuf la ko ndax faqiir bi ñàkk lool lool day jonjonte suuf lu bari ci toogukaayam ak tëddukaayam ak ci buy dox ak mbir yu bari rek kon iqtixaamul aqaba wax na ca benn muy fakku raqaba ñaareel bi mooy mu joxe aw ñam fekk ku ñàkk ay wayjur ab jirim mu leel ko ngir yàlla fekk ab miskin bu amul dara mu leel ku ngir yàlla aw itaamun wala leel kañ leel joxe aw ñam baax na jamono jëne ne waaye jamono yi ko gën a soxlaa mooy jamonoy xiif fii yow min diimal xaba bés boo xam ne loolu majaas la nit ñi ñooy xiif ci bés bi waaye du bés bi boppam moom mooy xiif kon bu ñu waxee fii min ci ab bés diimal xabatin bay borom ak xiif maanaam bés boo xam ne nit ñi dañoo xiif moo tax sarax li muy jamono yan nit ñi gën a ñàkkee gën a sonn wo koo la gën a baaxee ndimbal lu na rek jamono yi borom xaajoo dëgg dëgg ci la ëppee tiyaaba nga dimbale ko ci yeneen jamono jo xam man mën naa am soxlawul ndimbal la kan lay layal mu ne yatiiman mooy maf'ul bi yatiiman ab jirim boo xam ne jirim waxoon nañ ko démb mooy ki wayu juróom bu góor génn àdduna te kàllafeegul ki baayam faatu te matugul mu kalaf kooku moom la ñuy tuddee ab jirim daa maqrabatin bay boroom ak jegeñaale aw miskinan wala miskin daa matrabatin bay boroom ak ñàkk muy miskin bu amul dara ibnu abbas nee na daa matraba mooy almatruxu ala daxri tariq laa yaqihi min at-turaabi shay ku ñu sànni ci kaw yoon wa nga xam ne dara doxul diggam ak suuf amul dara lu ko mën a fegal suuf su makaana topp mu nekk nag min alladina amanu bokk ci ñi gëm xuruful atfi yi xam nga ne bu fekkee waaw la day jariñ ne lii ngay ataf maxtuuf bi ak maxtuuf alayhi ba dañoo sësaloo lii ñëw na rek lii topp ca summa nag da daan tegtale maxtuuf ak maxtuuf alayhi dañoo xaw a sorewante li xew na lu yàgg lii door a ñëw summa waaye nag loolu nekkul umuman summa fii daanaka max maanaam faa la fi yor la faa daan tegtal la fii tegtal maanaam jamono yi nga xam ne mi ngi goreel ab jaam jamono yi nga xam ne mi ngi leel ab jirim di leel ab miskiin ngir bëgg mucc ci sawara fekk na kaana mu nekk mi ne la dina amoon mi ngi bokkoon ci ñi gëm yàlla ndax goreel jaam li muy baax baax joxe aw ñam dimbale nit ñi loolu li muy baax baax ab yéeféer bu ko def du ko jariñ dara ki muy jariñ mooy jullit bi ki gëm yàlla waaye ki gëmagul kooku ma nga ca biti moo tax lu mu def rek loola sero la xabaan mansura yéeféer yi luñ jëf ci àdduna ci jëf ju baax léeg-léeg ñu tabax ay hôpital di faj nit ñi te duñ leen laaj dara léeg ñu fekk ñu soxla woon ndox ñu bënn leen ab teen wala ab robinet wala ñu dimbali leen may leen alal waaye fee gëmuñ yàlla jëf jooju du leen jariñ dara lam leen di jariñee ko néew fii lañ koy jariñoo ci àdduna waaye ku dee ci kéeféer yowmal xiyaam bul fa yaakaar dara bul fa séentu dara lu dul safara walladina kafaru amaluhum kasarabin biqia seen jëf dafa mel ni jonox li ngay seen ci naaju tàng yi muy larax larax mel ni ndox ta du dara yaxsibuhu damaanu maa an xata ida jaahu lam yajidu cheya ku mar yaakaar ne ndox la bu demee ba yegg doo fekk dara moo tax kon jamono yi nga xam ne ma ngay goreel jaam ba fakku raqaba ngir bëgg a ci safara jamono yi muy leel ab jirim di leel ab miskiin na fekk moom kaana nekk na min alladina amanu mi ngi bokkoon ci ñi gëm yàlla mi ngi doonoon ab julit watawaasaw tañ dénkante bi sabri ci muñ muñ ñetti xaaj la dafa am asabru fii ak asabru an ak asabru ala asabru an mooy mu muñ wëlis xeeti mooy yi mooy yàlla yu baree bari dafa dëppook bànneex bakkan bëgg ko lool waaye nga muñ ko ngir ne lii dafa xaraam rek nga bàyyi ko asabru ala mooy jafe-jafe yi lu mbir tiis lu métti métti nattu ko yàlla teg ci kawam mu muñ ko ngir yàlla asabru fii mooy ki yàlla defal jàmm ak i yu rëy mu yëg ne lii kat nattu gu yàlla teg ci loxoom la mu muñe muñ ba matal xàq yàlla bu mu ca beew kon asabru ñetti xaraf yooyu jàngun ngoo ca masali moom lay jalgate asabru fii asabru an asabru ala ñii gëm yàlla nag bokk na ci seen melokaan yàlla day wax way gëm yi teg ci ne dañuy dénkante ci ak muñ wax na ko ca suratul asr illa alladina amanu wa amilu saalihat wa bil xaq wa bi sabri fii summa kaana min alladina amanu wa tawaasaw te ñuy dénkante bi sabri ci muñ ndax lislaam lim bëgg ci nit ki nit ki jaar ci aw yoon muñ moo koy maye ku mënta muñ doo mën a mel ni nga war a mel mukk bo gisee alquran di tagg muñ lu bari di wax ne yàlla mi ànd ak kat yi di wax ne istainu bi sabri wa salaa na ngeen dimbali ko muñ ak julli euh, joxe ay misaal yu bëree bari rek ci muñ ak nim amee solo ni ko yàlla taggee ni ko jullit bi war a yittewoo ba lu mbir mën a mel ci kanamam mu mën koo muñ jéggu watawaasaw ñuy dénkante bi sabri ci muñ di muñ te boo gisee ko war a muñ nga dénk ko mu muñ wa tawaasaw ñuy dénkante bil marhamati ci yërmande ñuy dénkante ak yërmande di yërëmante di yërëm way néew doole yi di yërëm jirim yi irhamu man fil ardi ko man fi sama képp ku la féetee suuf rek képp koo tane ak loo ko tane rek na nga ko yërëm ci loola boo ko defee ña la kaw yow yërëm la irhamu man fil ardi yërëm leen ñi ci suuf yarhamukum man fi sama yàlla wala malaakaam yi ki ci kaw dana leen yërëm waaye ci maanaam mi gën a yaatu irhamu man fil ardi mooy lépp loo xam ne yaa ko ëpp doole na ko yërëm ci sa doole képp koo xam ne yaa ko tane ci wàllu am-am na ko yërëm koo tane ci wàllu xam-xam na ko yërëm di ko dimbale ci la ko tane boo bu ngeen ko defee xamu ko man fi sama ñi leen féetee kaw ci wet yëpp daañu leen yërëm ñoom it wa tawaasaw bil marhama mu ne ulaayika ñooñu nga xam ne ñoo mel noonu ñooy goral ay jaam ngir yàlla di leel seen alal di ko leel ay jirima ki ay miskin ngir yàlla gëm yàlla di dénkante ak muñ di dénkante ak yërmande wulaay ko ñooñu asxaabul may mën ñooy waa ndeyjoor ñooy ñi nga xam ne bu ëllëgee bu ñuy séddale téere jëfee ñoom daan jël seen téere ak seen loxo ndeyjoor ñoom ñooy asxaabul yamin asxaabul may mën a walladina ña nga xam ne nag kafaru wedd nañ bi aayaat naa suñu aay yi ñun yàlla ñii weddi alquran weddi aaya yàlla yi hum ñoom asxaabul mashamati ñooy waa càmmoñ ñoom ñooy waa gauche bu ëllëgee ñooy jël seen téere ak seen loxo càmmoñ dem ak ñoom safara te buñ duggee safara alayhim nekk nag ñoom naarun safara soo xam ne mu sadatun lu ñu xombe la lu ñu tëj ba kenn du génn safara suñu tëj amuñu fenn fu ñuy jaar ba génn dara luy niroog jàmm wala luy niroog sedd du fa dugg ndax ñu ngi leen tëj ci biir sawara kon loolu mooy sooratul balad bokk ci saar yi wàccee màkk comme niñ ko waxee waaye di